ni ñu ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moo di Matar Ndiaye Matar Ndiaye nag ku ne xam digganteem ak Serigne Modou ñaa mën naa ni combat Serigne Modou Niang yëpp moo koy monté ba ci grand combat bi nga xamante ne amoon na tey Matar ñu ngi lay jàlle li ñu bokk. waaw guy gi ñu ngi leen di ziare maa leen nuyu di nuyu Thier di nuyu mbokk internet yëpp di wax rek kon ni ñu koy waxee ni ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge te ci la ñuy delluwaat di wax yeewu nañu ak tiis ak naqar muy ku baax. nit ku am yar nit ku dal nit ku teey koo xam ne xëccoowul doo ko dégg mox lu ñaaw du ko def kon bu fi jugee tey dañu ñaanal rek njëgalu yàlla lañ koy ñaanal ci barke Seydina mm-hmm. di ko jaale nag njabootam di ko jaale ñoom njagañang doomam ñoom nday aram fatumis di ko jaale soxnaam yooyu di ko jaale gorom samay anday mati ñoo ñëpp ma la koy jaale di wax nag yeewoo nañu tiis daal wax dëgg yàlla am nañu lu ñu metti trop trop di ñaan rek yàlla xaari ko àjjana waaw dama yeewu rek gis euh, yaay fàttal mooy soxnaam bu ndaw bi nga xam ne maire Mati moom sama yaay la sama lépp la ah, ma taal sama connexion gis mu woo appel yu bare ma ne ah lii du jàmm fajar gi ma gis ay appel maire Mati ma liir vocal am ci la ma ah sa waa de noppalu na même moom mi ngi jëmoon gàmmu Mbelkoor ndax dem na ba Kébé maire bi mu yegg euh, décès bi dèjà moom mi ngi ci yoon bi sax di retourné ndax euh, Kébé maire la ko yëgee. ci la ma woo noonu daal laa yëgee nouvelle bi nag mu nekk lu tiis lool wax dëgg yàlla. parce que pour nañ ci waa CNG moom mosul yoreel def rek mooy la ma wax kay doy na muy nit ko yaru la nit ko dal nit koo xam ne xëccoo woo dara dara dara dara sëñ Modou du promoteur du mbër du combat du CNG dat wala leneen même lamb ji mu tëgg tey ji def ci dépense yëpp. buñ ñekkoon léegi CNG ni ko làmb yi dootu mën a am du laaj sax lu tax moom day waxee kon ne garaawul moom lu dëgër rek mu bàyyi fa seeti leneen amul dara dara dara loo xam ne mos na ko xëccoo ci làmb CNG bañ nañ ko ba bira barki dem rek yàlla xam ne yàlla laa jël seede mi ngi naan ma sëñ Modou jàppale leen ko moom si di jaaxate bira barki dem waaw mu ne ma ndax sëñ Modou xam nga rek man ko man xam naa lépp ndax loolu du fii booba bira ñëw gu moom mosul bokk ci werante CNG lu xeex ci CNG ay werante yooyu moom boo waxee rek mu ne moom du xëccoo dara li may wax rek moom daal lu ko nit gën a bëgg rek mu bàyyi la ko ne ci leneen waaw ñu koy ñaanal daal njégalu yàlla rek di ñaan suufu Tuubaa ji mu na oyof ci kawam. non man nag xaw nañu ko ci déggante tuuti wax dëgg yàlla ndax boo xool euh, Ndoye mooy assuré intérim bi liggéey bi li ci gën a bare ci loxo Cheikh Ndoye la nekk donte nag combat bi tëgg yi ci gën a bare semaine ba ñu bëri grand combat bi comme tey ni ma ko waxee sama ñaari mbër ñoo waroon bëri grand combat bi boo jóob sax xam-xam moo waroon nañ njëkk a bëri ak carrière tey jii ñoom ñoo waroon bëri boo jóob am blessure ci genou indi médical ndooy wax ma ne ma monté beneen grand combat ma monté beneen grand combat muy bébé garga ak tubaabu joor bu tiwaan pël gis nga boo jóob ci suba rek la ma mujj woo moom it ne ma man de damaa dégg xibaar bi man ko waa noonu la demee fi mu toll dèjà boo jóob ak carrière programmé nañ leen ci mois de mai bi. daan na jël plus de lu mat ay cinquante mbër di leen bëriloo ci ñaari fan. non non noo dina manqué nag. ci làmb dina manqué. loolu mënut ta ñàkk ndax sañ moo du ne boo xool ci doyen à part moom nga fi nekk promoteur bi gën a mag bu dul Gaston moom moo jiitu ñëpp ci làmb te it comme ni nga ko waxee moom moo ëpp lu mais tamit euh, dañuy jéem a xool rek comme njabootam ñun ñëpp jaxasoo nañu ñoom ay doomam suñu doom la suñu lépp lañ Cheikh Ndoye nga fi Pape Diagne Serra bi. ba vide boobu duñ ko sentir quoi. Hmm. jaajëf. Euh, comme ni ñu ko waxee ba tey rek ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moo di Dieye di Dieye promoteur di nawleem aussi ci làmb euh, Dieye ñu ngi lay jaale li nga xam ne moom la ñu bokk. waaw maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, vraiment tey Sénégal laay wax sax ak àdduna bi yeewoo na yeewoo nañu mbetteel yeewoo nañu naqar yeewoo nañu tiis waaye nag dañuy wax ne yàgg na ci àdduna muy suñu mag. suñu xarit sëñ Modou Niang di Mouniang production euh, ñu xëy tey rek annoncé ñu Noël bi vraiment mu nekk lu triste ñun mais dañ koy ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na fa fekk yiw yàlla na ko yàlla teeru ci wax ju rafet ak jëf ju rafet ji mu doon def fii ci réew mi ak li nga xam ne moom la doon liggéey mais vraiment moom metti na trop foog ab passé na ko waaye nag di sant yàlla suñu borom nag yàlla bu jëlee jaamam dañ koy ñaanal yàlla mu yërëm ko bu baax a baax a baax a baax waaw. relation nga amoon ak sëñ Modou. waaw sëñ Modou relation yi amoon ak moom passé wu relation ci làmb ak vraiment fu ñu daje rek mu ñu xelal lu baax di wax lu baax ku ne xam ne sëñ Modou moom lu baax rek la ko nit ñi xamee foo ko gis ku ne lépp loo xam ne di si gis boppam ci lu baax mu nekk ci di xelal xale yi ak ñi topp ci ginnaawam du baax parce que ñëpp dégg nañ ci mu doon wax ne nit ñi dugg ci lu ñu mën di def lu ñu man pour bañ a sonal kenn boo déggee moom moo tax mu doon def lu mel noonu ba noppi itam ñu xam ci moom ak taalibe ak bi mu ne nekk taalibe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon fa mu jëm yàlla na ko fa sëriñ bi teeru vraiment waaw. tey sëñ Modou est-ce indi handicap ci làmb boo xoolee yi nga xam ne doon leen dajale ci weekend bi ñuy euh, dañu wax nag ne euh, daanaka du wax ne bato dem bato ko semé day wax ne bàyyi na fi njaboot euh, njabootam lépp li nga xam ne moom la doon def rek yàlla na leen yàlla teg loxoom moom moom nga xam ne moo am kàttan ñu di ko ñaan ñu mën ko eggale ku mel ni ñoom njaga ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax di ko jaale ñoom xaadim ay doomam lañu di wax ne yàlla na yàlla oyofal yan bi seen kaw parce que nag nit yàgg naa nekk ci Sénégal dem ak njabootam féete ko ginnaaw la mu doon def ñu def ci lu ko ëpp wala lañ doon nekk ñu nekk ci lu koop par rapport ba nañ ci limal ay nit yu bëree baree baree bëri ku mel ni Serigne Buub ku mel ni man mi taxaw ku mel ni keneen ak keneen suñu papa yi am na ci luñ nekkan ñu doon leen ci jàppale bi ñu fi jógee dañoo gën a jàpp kon dañu koy wax rek sëñ Modou li ñu mën a wax tey comme ci naqar lañ nekk yàlla na yàlla yërëm te yéex a ñu waaw du ñàkk ni aussi am na ay jikko yoo xam ne tey mën nga ko seede ci moom yoo xamante ni doon nga ko bàyyi xel ci moom aussi li ma la wax rek baax te nit ki boo wax ci boobu rek lu baax rek mënul passé baax sëñ Modou nekk na nit koo xëy ku simple la sëñ moo du nekk na nit koo xam ne ni ku oyof la ku jullite la waxtu julli ba daanaa gis bu ñu toogee waxtu julli vraiment mu koy fonk euh, daanaa gis sëñ moo Modou itam muy xelal nit ñi lu baax te loolu rek lañ fi am fii ci àdduna nga génn tey àdduna ñu mën a taxaw ku gis mbooloo mi niñ taxawee nii képp ku ko yëg rek te doon nawleem wala ku ko yëg te doon am di jàmmam wala nga ñëw taxawu ko waaw voilà. acca ki ñu toogal nii nag moo di guy gi 95 moom tamit nekk ci làmb ji tey ñu ñàkk promoteur bu mag mooy Serigne Modou guy gi gannaaw ba ñu la nuyoo jaale la bu baax a baax li nga xam ne loolu la bokk. waaw maa ngi leen di fay waa wasaare benn di la nuyu euh, di leen jaale li nga xamante ne aussi tamit moom la ñu bokk parce que damay wax ni sëñ Modou Niang tey jeunesse moo ñàkk tey ndaw ñooy ñàkk sëñ Modou Niang doonoon na koo xamante ni. li muy liggéey ci ndaw ñu sax du ma ni kenn du ko liggéey mais bariwul ngay gis ñu koy liggéey ci ndaw ñi sëñ Modou Niang da daan boole plus de cinquante mbër ci vendredi samedi dimanche mën naa ci cité benn ci man mii man mii sama combat yu wëpp sëñ Modou Niang moo ko tëgg mosul yoreel mbër xaalis sëñ Modou Niang mosul yoreel kenn xaalis ba ci journée bi nga xam ne tey moo ko tëgg boo demee CNG ñu la añ yi sax ak lépp sëñ Modou Niang fay na ko. kon am nañ ci moom jort bu rafet boo xamante ni yàlla na ko sëriñ Tuubaa teeru teral ko. Hmm. waaw bi ñu déggee ci say kàdd mu nekkoon koo xamante ne nii ay mbër yu ndaw yu bëri yoo xamante ni ñoo ngi si arène bi moom moo leen doon génne di leen yéegal ci kaw est-ce que loolu du dem ba indi benn encouragement maanaam benn euh, gàllankoor tuuti ci ñi nga xam ne ay mbër lañ ñu ndaw. waaw loolu c'est vrai tey dem sëñ Modou Niang mbëri ndaw yi dañ koy dañ koy yëg parce que tey ku mel ni sëñ Modou Niang est-ce que dina amati. koo xam ne benn journée da tëgg dix combats xool ay xale yu ndaw di leen jël di leen jox ay grand combat man je me rappelle sama combat ak Boy Jules sëñ Modou Niang moo ko tëgg ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey boo xoolee ku ci mel ni guy gi combat yi mu bëri yëpp sëñ Modou Niang ko tëgg nga xool ku ci mel ni Balla gay keneen ak keneen kon kooku tey bu demee ah wax dëgg yàlla ñun mbëri ndaw yi dinañ ko yëg parce que tey damay wax ne ku mel ni sëñ Modou Niang est-ce que dinañ ko amati koo xamante ni baax na sëñ Modou combat su ngeen ko musaana waxaale man dama daan jékki-jékki ma tar njaago ni ma sëñ Mor moo bëgg dëgg sa combat xaalis baa ngi fi kay jël ma ne ko sëñ Mor de moom bu wootee vite fait et bien la te bokk na ci li mu gënoon a neex ci moom sëñ Modou du teg nit pression sëñ Modou da nga daan jékki-jékki sax jël sa téléphone woo ko waa père maa ngi préparé de muy la ah defal li nga mën rek jërul sonn defal li nga mën jërul sonn kon nag kooku tey bu demee euh, vraiment lamb am mhm. man tey ci fajar. bi ma yeewoo lañ ma woo biñ ma woowee ni ma yow sa père daa gaañu de fekk na boobu maa ngi julli ba pare di ñaanal sumay waajur fi ma toog yor sama kurus ñu ni ma eh, mais sa père gaañu na mooy leen ban père ma ni kii daal su nekkul dafa gis sama estati sama yaay bi ma bi ma bi ma ma estati moo tax mu may mu may kii nii quoi ma ne ko ban père mun ma sëñ Modou Niang ma ne ko non sëñ Modou mënul dem mun ma sëñ Modou Niang gaañu na ma ne ko waaw mooy yow sëñ Modou Niang moo dëgg làmb tey jii. mun ma si Modou gaañu na ma ne ko ok après ci laa coupé ma woo son ménagère Matar Ndiaye mu ne ma ah noonu la demee de sëñ Modou gaañu na nii laa ko yëgee mu metti lool ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko taxaare ko àjjanay firdawsi. Mhm. koy jaale bu baax dañ koy jaale yéen aussi tamit jërëjëf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 فعيش بدون الحب فيك مضيع عليك صلاة الله ثم سلامه لقاء كحسب الدير للقلب موجع ويوم كألف من سنين أعده قصيرا فما نفسي بذلك تقنع